internet sene info international jërë ngeen jëf ñuy am mbégte ak contentement di jàkkaarloo waat ak yéen si seen yoru yoru sene info ba tey duma ci wéet ma di ko amal ak sama naataango bi di Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf ma bàyyi ko mu nuyoo ñu daal di ñu daal di continuer waaw ah, waaleykum salaam soxna Astel maa ngi lay nuyu di nuyu itam mbokk internet yi nga xam ne kon ñoo ñuy bàyyi xel saa su nekk ci sene info international muy yitu bi seneinfo point net site bi ak suñu yeneen plateforme ci réseau sociaux yi di leen jaajëfal di am mbégte bu baax kon di and ak yéen ci yor yoru seen jërëjëf Boury Sine Coumba Ndoffène tey nag dinañ waxtaan si cinq point yoo xamante ne nii euh, waxtaan bi nag dinañ ko tàmbalee ak màggalu Poroxaan bi nga xamante ne nii soxna maam jaara lañu fay màggal tey jilee bu ñu jógee si loolu ñu dem si procès kii di Sonko ak Mame Mbaye ñu continuer ak conseil constitutionnel minga xamante ne ni jox na feu vert président ngir euh, mbirum location yooyu mu mën a wàññeeku dem ba tey euh, si affaire décret bu ministre des transports fixé ngir wàllum dem beex dikk bi à partir de minuit ba cinq heures du matin ñu jeexalee ko rek ak député Yewwi Askan yi nga xamante ne nii def nañu ah député Yewwi Askan yi nga xamante ne nii déposé nañu benn résolution si mbirum Covid 19 bi di wax ne. di si cité dix yi nga xamante ne nii dañ leen si war a déglu buur si ni ñu tàmbale waxtaan bi rek ak soxna Maam Jaara Buso mi nga xamante ne nii mooy borom Poroxaan waaw euh, soxna Astel comme ni nga ko waxee rek bésub tey bi mhm. mooy màggalu Poroxaan ñu si màggal kon euh, suñu maam bu tedd boobu di soxna jaara Bousso mm-hmm. nga xam ne moom mooy waaw juru euh, jigéen bu ah, Cheikh Ahmadou Bamba mm-hmm. di Serigne euh, Touba muy exemple euh, ci jigéen en ah. tant que jigéen sax ni moom dama lay bàyyi rek kon nga indi indil tuuti rek ci soxna soosu di maam jaara Bousso waa Bour Sine soxna maam jaara Bousso moom nekk na loo xamante ni dinaa sawar di ci wax te bëpp jigéen dina sawar tamit di wax si boobu le soxna ndaxte dafa nekk koo xamante ne nii royukaay la royukaay la si bëpp jigéen soxna maam jaara nag euh, moom nangu bi mën bu mu nangu loon kii di Mamor Anta Sali tax hmm. na bi yàlla daal di ko daal di ko terale kii di Serigne Touba si hmm. loolu nag mom soxna maam jaara képp kuy jigéen war na kaa mën a màggal tey tey nag ñu ngi amal bésam boobu fële ca Poroxaan xel yi ak xol yi yëpp nag mu ngi fa mm-hmm. ki dem ak ku demul ñun ñëpp suñu xel mu ngi fa ndaxte nekk na soxna boo xamante ni nii elle est exceptionnelle mm-hmm. moom nag euh, soxna maam jaara mu ngi ganese woon àdduna si atum 1833 daal di génn àdduna 1866 mm-hmm. boo xoolee mu ngi dund lu tolloox 33 ans nekk dund bu am njëriñ mën nañu ne guddul si ñun mais nekk na loo xamante ni am na njëriñ parce que dund moom mu gàtt mu gudd na am solo parce que liggéey na fi loo xamante ne nii mm-hmm. chaque att ñu dem fële ca Poroxaan màggal ko mm-hmm. loolu tamit nekk na loo xamante ne nii du lu yomb pour si macha allah ni ngi lu nga si am na solo trop comme ni nga ko waxee dundu bu ci ay at mm-hmm. dund bu néew la wante ci mbaax mbaax ci barke macha allah euh, am na solo trop junj ko ko sànq Poroxaan affluence la nit ñu bëri dinañ fa dem ci kaw loolu sax ki nga xam ne moom mooy meeru Poroxaan dafa sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi mbirum sécurité ñu gën leen cee jàppale ndax nga bu weesoo affluence boobu di fa am Porokhane dafa xaw a frontalier lay wax sax ak ak Gambie mhm. ba tax na yenn saa yi defkatu ñaawteef dañ fay profito di fa jaaral ay trafic ay trafic drogue ak yu ni mel mhm. tax na daal maire bi kon interpellé na bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi ngir ñu jàppale leen euh, surtout côté sécurité ci gox boobu di Porokhane mhm. jërëjëf euh, Bour ñu daal di euh, continuer ba tey rek ak procès kookile Ousmane Sonko war a wuy ji kii di Mame Mbaye Niang tey jii lii si tribunal de Dakar moom nag euh, ñu ngi koy tuumal mbirum diffamation mu war se wuy ji tey si boobule procès. waaw soxna Asel comme ni nga ko waxee bésub tey bii lañu ñu war a amal kon boobule procès nekk ci diggante. Euh, Ousmane Sonko opposant euh, politique boo xam ne moom euh, yaakaar naa kenn dootu ko présenté ak it mm-hmm. Mame Mbaye Niang ñu toppee Ousmane Sonko nag mbirum diffamation ak injure publique ak faux usage de faux gannaaw bi nga xamee ne nag kii Sonko dafa tuumaal Mame Mbaye Niang ne daal kon dañ ko épinglé Euh, ci daal ay euh, luubal jëm ci mbirum Prodac mbirum vingt neuf milliards yooyu rek ñu fi doon euh, tudd Mame Mbaye Niang nag gis ne kon daal kii di njiitu Pastef kon def ko diffamé dafa wax ci moom lu amul ba tax kon mu saisir li nga xam ne moom mooy justice comme ni nga ko waxee nag procès boobu bésu ba tey bii la sànq rek ñu ngi dégg sax ne moom Mbaye Niang moom Mame Mbaye Niang egg ca tribunal wante it am na ñenn ci avocat yi Sonko jiital Pastef yoo xam ne jot nañoo yegg ca tribunal moom jiital Pastef nag euh, mën na bañ a teew euh, ci procès bi bokk ak peut-être procès Adji Sarr ñu ngi yaa ngi dégg ñu naan bu ñëwul mën na am ñu jëli ko euh, par la force mais bii la moom mën na caa teew comme mën na caa ñàkk a teew. ñii day awakam teewal ko fa jàngat nag yi ma mën a peut-être si jeexital yi dama koy tënk si ñaari anam d'abord première conséquence yi gis nañ ne tey ñu bëri. dañoo tëj seen ay euh, bërëbu liggéeyukaay wala mhm. jaayukaay ndax ñu ngi ragal est-ce que mhm. est bi di yëngu ak yéen mel fële ci cité góor gi sax boo demee depuis démb li di sécurité bi gars yi commencé woon nañ ko fa renforcer mhm. tribunal aussi sécurité bi renforcé nañ ko kon nag euh, première peut-être jeexital bi am côté boobu laa koy laa koy jàngatee beneen jàngat mees moom mooy ci diggante Ousmane Sonko en tant que tel euh, tey si toutefois procès bi am na ba ñu condamné ko si mën na tax ba du euh, bokk ci élection présidentielle bi nga xam ne kon waaw waaw 2024 moom la ñu moom la ñu moom la moom la ñu dëgmal mm-hmm. lu si mën am daal fi mu nekk nii kon ñu ngi ci boobu les procès ñuy xaarandi ba xam. waaw fii ak si kanam du ñàkk waa dinañ ci am lu leer quoi. waaw ñu xaarandi rek fii ak si kanam xool boobu le procès ba tey dinañ si ñëwaat ak yéen si bu ñu jotee ay nouvelles procès boobu nag buñ si desee ba tey tey tamit si information yi ñu jot si suba école yi nekk si alentour moom këram di Ousmane Sonko école yooyu jotu ñoo tijji dafa mel ni tamit boo xoolee ba ci biir moom Ousmane Sonko euh, tension yi parce que ñu bëri ñu ngi xalaat mu am ay tension am ay euh, ñu ñu condamné que si problème am wala dara mm-hmm. moo tax euh, information yi ñu jot si suba mooy école yi nekk si côté bi jotuñoo jàng loolu tamit nekk lu doy waar muy beneen <laughs> conséquence muy benn beneen conséquence si mbir mi tamit ba tey ñu continuer si wàllum euh, location yi nga xamante ne nii conseil constitutionnel jox na kii di président feu vert ngir mu mën a wàññi yi les location effectivement comme ni nga ko waxee xam nga euh, nguur gi gannaaw bi ñu ne dañuy wàññi jógu location nga xam ne na trop mhm. fii ci euh, Ndakaaru euh, loolu nag dañ ko bëggoon jaarale par euh, voie de législation maanaam jaarale mbir mi assemblée nationale mu doon ab loi boo xam ne dañ ko fay voté mais nag xam nga d'habitude loolu législation day yàgg maanaam pour ñu jaarale projet assemblée nationale ak gars yi voté ak yooyu mu amay amendement mën na yéex daal processus mën na yéex par la suite nag la nguur gi jëlaat beneen yoon ñu ne est-ce que duñ par règlement maanaam njiitu réew mi de jël décret décret boo xam ne da koy jël euh, nga xam ne day application bi day direct buñ ne buñ ne jël na décret bi rek ñu promulgué ñu promulgué ko aywa ñu appliqué quoi wante nag loolu pour mu def ko il fallait que euh, mu saisir ñi nga xam ne ñoom ñooy conseil constitutionnel ci loolu nag euh, la njiital jëwriñ yi di premier ministre saisiroon lii di conseil constitutionnel fi mu nekk nii nag ci bees moom mooy jox nañ ko faveur feu vert jox nañ kon feu vert njiit réew Macky Sall nee nañ ko kon mën na jël boobu li décret ngir wàññi lii di location yi kon nag euh, amaat na peut-être fii ak euh, fii ak i fan dinañu dégg kon njiit réew mi ne jël na boobule décret pour ñu mën ko appliquer ndax nag mëg na ko sénégalais moom sonn nañ trop trop trop euh, si mbirum loyer dafa nekk loo dafa cher trop ci dëkk bi mhm. dafa métti trop ci majeure partie sénégalais yi nga xam ne dañuy góorgóorlu rek quoi. a caution bi ñu lay laaj yooyu yëpp soo waree soo waree luyee lu toll ci ay njëg eh, bi cher ba pare ñu laal ñu laaj la caution lu toll ci ay ñetti weer loolu tamit dafa métti torop. moo ci même ci caution bi dégg na ñu ne dinañ ko kii dégg naa ñu ne caution bi dinañ ko kii quoi comme maanaam. Euh, yenn saa yi ñu ci ëppalee noonu di laaj caution yooyu. Mm-hmm. Euh, yaakaar naa sax war na mën a war dina bokk ci euh, maanaam ni ñu appliqué ba tey mm-hmm. kuy. utati luwaas kenn du la laaj comme yenn saa ay ñetti weer am na sax laaj ba ñeenti weer caution mhm. euh, loolu tam xam naa incha allah dinañ en compte wa ba tey euh, Bour Sine ñu daal di continuer rek si ministre des transports si euh, wàllum dogal bu mu jël si mbirum circulation bi minuit ba cinq heures du matin waaw soxna asu comme ni nga ko waxee muy euh, décret boo xam ne kon pour nag euh, li nga xam ne moom mooy transport bi la concerné véhicule de transport en commun yi gannaaw nag euh, nguur gi bi mu ay mesure ngir kon lii di sécurité ci kaw yoon bi ñu gën koo mën a ñoŋal lu jiitu nag dañ ne woon diggante vingt trois heures ak cinq heures du matin lay dool wante nag euh, gannaaw bi nga xamee ne nag nguur gi dajewaat nañ ak transporteurs yi ñu waxtaan ci euh, ak lépp léegi dañ ko def entre vingt trois heures euh, minuit boog entre zéro heure minuit ba cinq heures du matin instant bi nag décret bi génne nañ ko bokk na ci itam xam nga li wàllum même porte bagage yi wàññi nañ ko dinañ ko wàññi mm-hmm. ba du dépassé di yenn auteurs yi ak euh, yi ni mel loolu yëpp tënku euh, nañ ci euh, wante foofu tam am am naa benn jàngat bu ma si bëgg a indi lu jëm ci wàllum li nga xam ne moom mooy bagage yi di yëpp mm-hmm. muy yenn saa yi bagage yi li ngay gis muy bëri bëri bëri bëri yénn bëri yi xam nga koy waral yenn saa yi sax mm-hmm. day am ñoo xam ne dañuy du ñu tukki de mais dañuy yeb dañuy yeb yeblu seen ay bagage ci liñ oto alors que loolu yoon da ngay commerçant bu nekk ci dëkk woo ki nekk ku nekk région tel ne ko yebal ma temps mu yebal yëpp yëpp oto bi oto bi ba mu ba mu fees bagage ba muy dox di dawee côté alors c'est pas normal maanaam oto yooyu oto maanaam ku bëgg loolu yow commerçant nga wala da ngay liggéey def construction soxla ñu ne sa bagage mais utal oto bagage oto yoo ne pour bagage kese la mm-hmm. ñu yebal loolu loolu bi ko defee loolu bëgg naa autorités yi bàyyi ci xel bu baax a baax faa moom mm-hmm. contrôle strict bu jëree sax moom ay ndaw yoo xam ne dañ leen di yebal ci garage yi pour man jar na ko ñuy contrôler képp ne dafa bëgg a ay mhm. bagage am da auto bagage mais pas auto bi nga xam ne day transporter ay mhm. nit ñi nga xam ne ñoom ñooy dem mais mhm. yeneen i bagage yoo xam ne ay jaaykat la ñoo ak yeneen ñoo koy jël yaakaar naa aspect boobu tam war nañ ko prendre en compte bu baax a baax. ñu bàyyi ci tamit ñun jeexalee rek ah député Yewwi Askan bi nga xamante ne daal leen di déposer résolution si dix si lu toll ci dix député ngir ñu déglu leen si wàllum rapportu Covid 19 Bour Sine ma bàyyi la nga de développé ci tuuti. waaw soxna Asel comme ni nga ko waxee rek xam nga rapport Cour des comptes dañ ko génne ñu gis ne nag am na ay doxalin. yu jaarul yoon ci koppar yi nga xam ne kon moom lañ doon euh, jëfandikoo ngir xeex jàngoro yu coronavirus rapport bi sax euh, laajoon daal euh, ñu daal kon amal daal ay nan laa ko mën a waxee sax euh, rapport bi rapport bi ay information information judiciaire rapport bi kon rapport bi nag bi mu génnee laajoon na ay information euh, judiciaire wante nag dafa am ay député yu groupe parlementaire bu yeewu askan wi yu jóg ñoom euh, gis ne daal ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ministre yoo xam ne laale nañ soit directement wala indirectement ci loolu ñu jàpp ne kon yooyu le ministre ñu toll ci fukk dañ leen war a daal déglu yoon war na leen ñoom daal dañoo gis ne ñi nga xam ne ñoom ñooy directeur généraux yi daal wala ay euh, daaj yi ni mel ñoom lañu gis ne ñoom la ñu gën a singali ñoom nag ñu gis ne kon ñi nga xam ne ñoom ñooy ministre yi seen responsabilité daf ci nekk ñu lim nag lu toll ci fukki ministre euh, Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Daouda Diallo Aminata Assome Diatta Mansour Faye Zahra Iyane Thiam Moustapha Diop Abdoulaye Diop Sophie Gladima Néné Fatoumata Tall day Sali Diop Dieng ñoom na jàpp nañ ne fukki ministre yooyu yëpp Euh, war nañ leen daal déglu ba tax kon ñu amal euh, li ñuy woowee ab euh, mise en accusation résolution de mise en accusation boo xam ne kon déposé nañ ko assemblée nationale di xaar ba xam kon na naka loolu lay mujjee. jërëjëf Bour Sine ni lañ leen indiloon tey xanaa ma bàyyi la nga tàggatoo ak internetu seneinfo point net seneinfo international ñu daal di leen bàyyi rek ba suba incha allah. Euh, waaw di la jaajëfal bu baax a baax soxna Astel di jaajëfal itam suñu caméraman euh, bii di Abdel di sant bu baax a baax ak euh, gërëm mbokku internet yi nga xam ne kon saa su ne ñu ñuy bàyyi xel ci suñu différentes plateformes yi xanaa di fàttali rek ne suñu imam boobu ma wax ba léegi amaguñ ci nouvelle mm-hmm. kon nag ñu ngi koy ñu ngi ñaan yàlla di gën a ñaan yàlla yal na ko niit incha allah ñu gis ko te it ñu gis ko si jàmm dara bañ koo jot jaajëf. internet u info point net sene info international jërë ngeen jëf li lañ leen indi loon tey seen yor yoru sene info xanaa di leen jox dig daje ba suba rek incha allah jërë ngeen jëf